Voilà, merci d'abord euh, pour cadrer la situation géographique. On est à Pékin Nord, dans la commune de Pékin Nord, précisément dans le quartier Euh, C'est une zone non édificante. En fait, euh, les populations se sont installées ici progressivement, euh, au point qu'à un moment donné, personne ne pouvait arrêter l'érection de ces maisons-là. La commune euh, a, pris en charge la formalisation de ce quartier en créant le quartier Ndiassana. Je crois que c'est sous mon premier mandat. Et depuis, chaque hivernage, ce quartier vit des inondations de manière terrible. Parfois, c'est pire même que Kermassar seule la commune intervient. Et depuis que le président de la République, euh, le président Maxal, nous a donné les 4 hectares qui sont la seule assiette restante, assiette foncière restante depuis que nous avons décidé d'investir dans cette zone des infrastructures de dernière génération au service des populations, telles que un centre commercial de 2500 places, une maison de la femme, une ZOE, un manège pour la petite enfance, amener tous les mécaniciens et les autres corps de métier à venir s'installer ici pour dégager un peu l'intérieur de la commune. Et après le remblai, on a vu qu'il y a un impact de retour vers les populations. La commune se sentant responsable a décidé cette hivernage, la veille, de faire des tranchées pour évacuer les eaux vers le technopole. Cette année, on est au mois de, de mai. Mieux vaut prévenir que guérir. Et gouverner, s'est prévoir. Le quartier Ndiassan, ayant cette crainte bleue, pour les prochaines pluies, s'est mobilisé autour de la commune pour investir cette journée de dimanche 21 mai pour curer les cuvettes qui ont été construites par la commune, dégager les ordures ménagères qui obstruent ces cuvettes pour rendre fluide ces tranchées et ces avaloirs d'eau créés par la commune. Donc cette journée-là est une journée de prévention pré-hivernale. Mieux vaut intervenir avant Sachant que pendant la période de pluie, on aura de petites actions légères à mener pour soulager les populations. Oui, la première initiative, c'est de dire aux populations de quartier que ce ne sont pas les habitants de Guédiawaï ou de Yumbel ou de Dakar qui mettent les ordures. C'est les habitants de ce même quartier qui obstruent avec leurs ordures ménagères ces tranchées. Alors que les tranchées sont la solution véritable pour les éviter les inondations. Donc la première mesure, c'est la sensibilisation. <coughs> excusez-moi, si vous avez vu la mobilisation de ce quartier à l'intérieur de lui, les femmes, les imams, aujourd'hui ils sont en train de faire donc, une lecture du Coran depuis ce matin. Tout le quartier est mobilisé et sensibilisé pour arrêter le déversement des ordures. Vous avez vu l'équipe de UCG qui est chargée de la collecte des ordures ménagères. Les camions arrivent jusque dans ce quartier-là, mais les femmes étant paresseuses attendent à 2h du matin et mobilisent les ordures pour les déverser dans la cuvette qui est la solution. Donc c'est la mesure de sensibilisation. L'autre mesure, c'est avec le gouvernement du Sénégal, le président de la République nous a accordé une ligne de crédit de 470 millions pour faire l'assainissement de toute cette zone. Ça va être une ceinture. Le directeur de ONAS, Mahmoud Diallo, est venu ici. Nous avons un partenaire qui est là, euh, qui fait les travaux. Mais la mairie a insisté préalablement, avant toute construction, de faire l'assainissement du quartier Ndiassa. Faire ces ceintures après étude technique validée par ONAS investir 470 millions avec l'accord du président de la République pour que les avaloirs de cette tranchée puissent être euh, classiques ou modernes, avec les tuyaux qui sont déjà sur place. On peut, on peut le vérifier sur place. Donc ce sont ces deux solutions. La première, c'est la sensibilisation et l'éducation environnementale. La deuxième, c'est l'investissement vers un assainissement organisé avec un investissement de 470 millions. Et ça, on remercie également le président de la République. On remercie <clears throat> ONAS à travers son directeur Mahmoud Diallo. On remercie Kheris notre partenaire, à travers Doudou Diallo, qui ont amené ces, petits, ces premiers, ces premiers euh, tuyaux pour régler définitivement le problème de ce quartier-là. waaw je vous remercie. Vous di gërëm di euh, gis ngeen quartier Ndiassane góor jigéen mak ak ndaw délégué de quartier imam jeunes, femmes, ñëpp bàjjenu gox ñëpp sont venus aujourd'hui, le 21 mai bi

espace bi président de la République jox 4 hectares ñu war ci def centre commercial Cheikh maison de la femme maison des jeunes def manège jël mécaniciens yi wutal leen fi benn centre technique ñoom ak ak yeneen corps de métier yi handicapés yi ñu jox leen fi espace loolu mooy projet bu ñuy président mais ba nous sëkkee ba pare dañu gis ne tamit retour yi day population bi moo bi jóg xam ci investir transo nak moy mooy yóbbu ndox mi parce que ndox comme du bàyyi yoonam su jubee fiñu dan daan dan dem gis ñu sekk ko day dugg ci lolu ñuy gas muy ceinture assainissement bi 470 millions le président de la république jàppale ñu suñu partenaire bi moy def genn wàll gi ONAS def genn wàll gi yi commencé na mais comme lolu amagul mbalit mi mo fatt tranché yoy mo tax ñu bala ñuy tok di wutu walu ñu mobiliser quartier bi pour dindi mbalit wax leen bu fi kenn tuurati woo waa UCG ñoo ngi nii gis nga leen depuis sept heures ñu ngi fi oto mbalit day ñëw ba ci biir quartier bi ñuy wax jigéen ñi ngal la su oto bi cornetee yóbbu leen seen mbalit su la rawee téye leen ko ba suba waaye toog ba deux heures du matin fatt ko su nawet bi ñëwee ndox mi demul day dellu seen kër yi day ball day guus donc loolu mooy sensibilisation bu njëkk bi beneen bi partenaire bi moo ngi nii dama leen a poñe nee leen kenn du fi yëkkati bâtiment tant que quartier Ndiassane ceinturé wuñ ko ak ay travaux d'assainissement ba ndox bu ñëwati doon dem ci yoonam am pax yuñ ko defal tabax ko ba lu ndox taw taw taw su ñëwee dugg ci taw yi ñu mécaniser ko yóbbu ko mu dem bu ko defee quartier bi féex travaux yi doog a mën a commencé loolu mooy combat commune bi donc may félicité quartier Ndiassane nga xamante ne tey mën naa ne kër yëpp kër yëpp a tëj génn bokk ci set setal bi donc di remercier tous les acteurs yi nga xamante ne bokk nañ ci di remercier également la presse wax la ne tey duñ fi génn te xalluñu yoon yëpp. duñ fi génn te dindiwuñu mbalit yi fatt fatt yi sareet yeeg yooyu yëpp tey tey la mairie bi taxaw fii taxaw tem pour tàggali quartier Ndiassane ak insécurité boobu ak mbalit yooyu ak tiit bi daan tiit ci nawet tey la ñuy def les premières lamp yi tamit zone bi amuloon courant man maa def extension bi jëndal leen ay poto indi ko ba fii quartier bi sës jàkkaarloog àll bi mbedd bi mujj ci àll bi boo ko tàllalee bout ba but mairie bi def na fa ay làmp taal nañ ko maanaam quartier bi léegi daal li may wax mooy ñi ñiy fekkee ëllëg yàllaa xam dinañ xam ne Ndiassane dina mel ni inshallah. Le grand de envergure 2500 places la zawiya le manège la piscine municipale voilà tous ces grands projets qui seront érigés ici c'est Kéris qui est en collaboration avec la mairie après délibération hmm. pour faire ce job là les vrai qu'ils n'ont pas encore commencé, ils sont à l'étape d'assainissement. Mais malgré ça, chaque fois que le, quartier a besoin d'un appui, je le sollicite, il vient. C'est pourquoi le directeur de l'exploitation, M. Fall, est là. Je voudrais véritablement qu'il puisse parler à l'opinion et rassurer les gens. Euh, oui. Merci, M. le maire. Euh, c'est M. Fall, Fall, Je suis le directeur d'exploitation de Jury Sénégal. Euh, Sénégal est donc euh, l'entreprise qui est chargée donc de la réalisation des études et des travaux d'assainissement aux, donc aux alentours de la, de, la, l'arène nationale. Comme a dit M. le maire, vous n'êtes pas sans savoir les problèmes, toutes ces difficultés que vivent les populations de pékin Nord à chaque arrivée de l'hivernage. Et donc, nous, on est chargé donc de, régler ces problèmes-là avec euh, euh, la collaboration de l'ONAS. Donc euh, c'est un projet qui est très cher à la mairie euh, de, de, de, Pékin Nord que nous remercions de cette invitation-là pour cette journée de, de, Cleaning Day. Et donc c'est un projet également qui est très cher à M. le Président de la République et qui en fait vraiment un cheval de, bataille. Quoi. Et, nous avons déjà effectué toutes les études, euh, ont déjà été faites et validées par l'ONAS. Donc les travaux d'assainissement euh, des eaux pluviales vont incessamment, dans les jours qui, vont venir, démarrer. Et vous verrez, comme a dit M. le maire, donc, euh, euh, une autre facette, un autre visage donc, de la commune de, de, Nord. Oui, bon, vous avez raison, vous avez raison, mais on est on a, je, vous le dis, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà fait toutes les études et on attend juste quelques réglages administratifs donc pour démarrer les travaux. Et ça, c'est quasiment euh, réglé. Et dans les semaines qui vont venir, certainement dans une, dix jours, une semaine, dix jours, les travaux, vous allez voir. Vous pouvez revenir vous-même constater donc, le, le, démarrage des travaux. Vous avez, si vous regardez bien, vous avez, euh, vous avez vu, on a déjà installé tout le, euh, tout, tout, le matériel déjà, déjà déployé sur place. Et donc, il y a une partie de du matériel qui est euh, euh, euh, de l'autre côté. Donc vous pouvez vous-même constater ça après. Si vous voulez, on va faire une visite guidée, si vous le souhaitez. Donc on est, le matin est déjà là, on attend juste donc le démarrage, ce sera immédiatement fait, Inch'Allah. Oui, M. Monsieur le maire l'a déjà dit, nous avons un projet donc de construction, de mettre en place un complexe commercial avec un centre commercial, avec une zawiya, avec une piscine municipale, avec un, centre pour les jeunes et, tout ça, euh, on ne peut pas, euh, la mairie a jugé nécessaire, et, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on ne peut pas mettre en place ici ce euh, complexe-là, ces, travaux-là, sans pour autant gérer le problème de l'assainissement, qui est un problème qui, qui, fatigue les populations, qui est une difficulté majeure pour les populations. Et donc, nous allons, c'est la raison pour laquelle, avant de commencer ces travaux d'envergure, de commencer d'abord euh, de, traiter cette question-là de l'assainissement. Voilà. Donc, euh, nous, nous, voulons véritablement rassurer les populations, que nous remercions d'ailleurs, sont, les populations elles sont, elles sont depuis ce matin euh, sur place et, nous avons vu ce qu'ils sont, ce sont en train de faire et nous, nous, les encourageons. comme a dit M. le maire, Jérusalem Sénégal et, ne cesse d'accompagner la mairie et nous encourageons le, le, monsieur le maire, nous le félicitons, mais nous l'encourageons à continuer comme ça, puisque c'est comme ça qu'il faut faire. Et, et, nous, euh, nous allons, euh, monsieur le maire, rassurez-vous, nous allons continuer à vous accompagner, à, accompagner toutes les populations pour que, effectivement, améliorer leur cadre de vie. Nous xam ngeen ni taw bi mi ngi jóge si te saw bi taw bi bu ñëwee du donc euh, salté bi yëpp du ànd ak ndox bi yëpp population bi du mën a dund ak ak ak ak jafe-jafe yooyu noonu jafe-jafe itam xam nañ ni yàgg na te incha allahu rabbi euh, ci euh, kilifteefu mairie bi ak euh, président de la république nga xamante ni projet bi ñor na ko lool quart de vie population Pikine ñor na ko lool moo ñu ñoo ñu yebal sant ñu ñu ñëw liggéey liggéey liggéey assainissement bi ma nga xamante ni bu tawatee benn ndox dootu taxawaalu fii waaw ndox bi yëpp dinañ def de sorte que ndox bi dina dina dina écoulé wu dem nii muy sole ne population yi loolu dootul am incha allah loolu moo tax ñu ñëw tey indi suñu ay matériels yi ngeen gis nii yëpp ñu indi ko pour jàppale ko monsieur le maire jàppale ko population yi euh, population Pikine Nord pour euh, euh, travaux pré hivernage yi. quartier ah. Ndiassane quartier quartier quartier Ndiassane waaw liggéey bi liggéey bi liggéey bi comme ni ñu ko waxee léegi liggéey bi léegi mu tàmbali ndax xam nga lu tool nii projet bu toll nii. Euh, assainissement bi sax li ko waral mooy ni ko maire waxee léegi dañu am complexe bi nga xam te war nañ ko def fii ak zawiya Seydi euh, euh, El Hadji Omar Foutiyou Tall ak piscine municipale loolu yëpp fii lañ ko war a def ak centre bi nga xamante ni ndaw yi foofu la ñuy pour pour ndaw yi yëpp dañ ko nar a def fii nii si si si si si terrain bi nga xamante ni président de la république moo ko mettre à la disposition di 4 hectares à la disposition donc de la mairie de Pikine d'abord lijjantiwuñu problème assainissement bi ndax xam nañ ni ay ati ngi nii euh, problème bii ni problème bu bu lëjal bu bu bu sonal population bi la loolu moo tax ñun balaa ñuy dem balaa ñuy attaquer euh, projet yooyu noonu ñu euh, déjà ah, su l'égide de la mairie def réalisation wu études yi maanaam saytu d'abord balaa ñu commencer liggéey bi ñu xool naka law liggéey bi war a demee loolu yëpp def nañ ko def études yi war a dem yëpp def nañ ko li ci des rek mooy tàmbali liggéey bi te tàmbali liggéey bi moom euh, fii léegi semaine wala ñaari semaine man ngeen ñëwaat fii nii daa ngeen ñu fekk fii ñu commencé liggéey bi liggéey bi sax tàmbali nañ ko ndax bi ngeen seetloo matériel bi yëpp déployé nañ ko fële ne fi ñu war a def matériel bi yëpp def nañ ko fa donc commencé rek moo des tàmbali liggéey bi te loolu incha allahu rabbi du yàgg léegi rek incha allah nañ ko commencé. maa ngi leen di sant di yéen ñi ñëw taxaw jël seen i jox ma pour ma wax ci mbirum Ndiassane parce que parce que bés bi bés bu màgg la bés bu rëy la dëgg la daan nañu def mës nañu ko def waaye bii c'est spécial balaa may dugg ci leneen dinaa dinaa ne yéen ñëpp ngeen ñaanal sama papa Bécaye Kounta mi nga xam ne moo fi jóge keroog ñi ko fekk ñi ko fekk yonent bi saa sa maamam teeru ko ci àjjana gën a kawe yàlla na ko yàlla def maa ngi sant nag monsieur le maire di sant population bi yëpp képp koo xam da nga nekk ci cabinet maire it maa ngi lay sant cameraman yi nga xam ne ñoo bàyyi seen liggéey ñëw fii di wax ak ñun di di ñu leen di wax suñuy soxla ah di wax li nga xam ne moo ñu jaaxal maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bés bi nag bés bu màgg la parce que ku su fekkee monsieur le maire dafa jël initiative après concertation parce que daaw da ko da koo defoon daal di xàll yoon yi ba nga xam ne ndox mi dañu ñëw ci ñun yàlla def mu am fu muy dem bi ñu demee ba jëmu janoo kër ba ma ko fekke ci cabinet ñom Ndiawar fay tok delu quartier dama ne ko monsieur le maire la nga defon daaw soko soko commencé won légui dana bax parce que daw ñu nga fa indi fa ay engin ñu xëtt fofu yëpp defal fa un canal canal bobu motax mo don traine ndox bi mu dem fele lolu noppal ñu ci lool mané na comme comme ñu commencé sourou té xalé yi fa lañuy yegg jall ak bay yeex lepp mu ngi ensemble wu motax mo ma bëggoon ñu ko mëna défé rek ñu def ko may remercier aussi monsieur Ndiawar Faye bi newoon ci wétam parce que dama am yaakaar ne apprécié na waa quartier bi jóg nañu amul kenn ku taxaw parce que ñun suñu problème mooy Ndiassane assainissement am wax naa ko président de la république gis naa ci ay jumtukaay yu mu def gis naa ci mesure d'accompagnement yu def bi ma ne ko station bi baaxul bi baaxul bi baaxul dafa ñëw keroog yónnee ma directeur de l'ONAS après monsieur Mbaye Thiam le ministre yónnee monsieur monsieur monsieur directeur de l'ONAS ba mu ñëwee. te ci taxaw ci liggéey bi liggéey ci liggéey bu mucc ayib ba yàlla def ko ba ñu poosee tuyoo yi ne fu fan yooyu yëpp Ndiassane dafa feesoon na ndox bu bon waaye ba ñu feesee ba ñu ba ñu poosee tuyoo yi tuyoo yi naka lañ ko posé waat rek di génn rek si la benn côté bi daanu parce que dafa vétus depuis 1983 84 lañ ko defal ma leen di sant di sant président Macky aussi le fait que mu ñaan nit ñi wax waa waa service compétent ñu régler sa problème effectivement population bi maa ngi leen di ñaan di leen wax ni ku leen ndimbal balaa mo balaa mo bax fekk ci borom waye kenn ko xam dañ dañuy dimbali te mënoo fexé ba dimbali sa bop dafa nekk lu joy war dama bëggoon mbalit mi mbalit mi so leen ko jëlee té auto yaangi ni depuis temps wu koos ba mu ñu la wax Demba job donc ça fait plus de 15 ans lañu commencé di ñëw di ñi di ñu jox mbalit mais bi UCG ñëwé dañoo dugg ba ci biir quartier yi dañ fi ñëw deux fois trois fois dans la journée ngal la dama leen di ñaan jël leen seen i mbalit ngeen yóbbu ko à point nommé fañ ko war a jëlee ñu jëlee ko fa leneen nag dinaa ko waxati euh, branchements sociaux yi nga xam ne moo nekk ndox mi te ñu waxoon na ko te ñëw fii nañ ci gaaw nañ ci gaaw nañ ci gaaw parce que le le le peuple en a besoin na parce que c'est un quartier qui n'a pas de plan cadastral mais nous bëggoon aussi ñu dote ko ndax kër yi parce que nous kenn xamul demee nu muy muy nawet bi muy fi nga place ba di nit ñi monsieur le préfet Demba Diallo yal na ko yàlla dox ci jéego yu mag ba ñu ba ñu fa amati ay kër place teñ ko defon ko pour jàkk nañ ñu ko joxat mom place bobu la taxaw ni dama bëgg ñu jox ko jàkk wa mo bëggon aussi à chaque fois mo bind à chaque fois à chaque fois ñu bind à chaque fois ñu bind nañu top suñuy bind di di ci di ci intéressé wu ndax mo am suivi bu am solo

jaar ñoom ñu def am lu ñu def jëmale ci man ma dig leen ko yow naa jox naa leen ma kuy kuy bëgg a def wala kuy waaj a def ña defoon sax maa la ko digoon. waaw. waaw waaw waaw non def ma bu tojul moo tax. Ah! déglu leen dama ne woon ci kanam naa fa jaar nuyu waa Wanji may leen njëgu omo njëgu omo laa waxuma ñi fi toog ñëpp lu ñu leen jox ñu yóbbu seen kër yéen yéenee ay jàmbaar yéen a dugg ci wàññi toggal góor ñi toggal mag ñi toggal jox naa leen dépense ba mot sëkk ba bis leen mënoon naa fi sax bañ a jaar mais yéen a nekk ci naaj bi ñu nekk leen fële suñu paree ngeen yekk teraanga jox sama xol sedd te man su ma seddee damay daanu damay daanu ay junni laa

damaa daanu xam mu tourné ne ma foo xamee ma xam fa joxe nga fukki junni ci waañ bi ma ne damay joxe fukki junni ci waañ bi mooy Njawar Faye Njawar Faye